dama ne buñ ko. ñoom ñoom Thérèse Diouf Faye elle se permet wax alors que <laughs> moom Thérèse Diouf Faye sincèrement. je l'aime bien mais Thérèse moom devant Zahra Iyane Thiam elle ne représente. waxuma devant Zahra Iyane Thiam on on se souvient que bi Macky Sall di génn Zahra Iyane Thiam moom moo àndoonam. Thérèse fan la nekkoon. non dama ne boobu xale la xam nga boobu dama la xam nga laa bëgg wax. na dal nag. xam nga waxuma loolu de dama ne moom bu muy gagné jaareex xam nga jaareex réyul mu ngi koy benn xale bu ndaw la gagné te dañoo dem ba tribunal Kaolack pour mun a xolal mun ko xëccal ay xob on les connaît tous mais jàpp nañ ne Amadou Ba da Amadou Ba les pro Amadou Ba dafa nekk nit koo xam ne ñoom ñooñu jàpp nañ ne bu Amadou Ba ñëwee xam nga bu soobee nag quoi qu'on puisse man nee naa man Amadou Ba bu ñëwee du ma boole sax ci équipe am muy liggéey bi parce que je connais la personne c'est quelqu'un qui incarne l'État c'est quelqu'un qui respecte les normes de l'État c'est quelqu'un boo xam ne amul jaar-jaar ak kenn il s'est fait tout seul Grand Dakar la juddoo màggee parcelle jàngee fii xoslu ñëw comprendre nga inspecteur des impôts bokkut ak ñoo xamante ne Macky Sall moo leen jël bu dul Macky Sall duñ duñ duñ duñ nekk ah, décret ba tamit on peut on peut dire on peut dire euh, ça aussi que Macky Sall moom moo ko defal promotion que soit mu nekk impôt que soit mu nekk si gouvernement bi Amadou Ba boo demee impôt domaine laaj ay camarades hmm. il a été chef de centre chef de service chef de département Macky Sall moo ko def ministre. non non non dama lay non avant loolu dama lay wax. def ko premier ministre non non attends non dama lay non dama lay am na trajectoire administrative boo. xamante ne jaar jaar mhm. ah, Macky fekk ko mu nekk directeur général impôt confirmé ko. ah je suis d'accord dama la da ko fekk ci circuit. defu ko li mu doon tey Thérèse bu dawalee oto Macky Sall la. ah bon déglu ma. Thérèse da lay seetaan non dama lay ne bu dawalee oto Macky Sall la bu bu amee kër bu jëndee appartement fii euh, yàggut euh, point 1 la bu tabaxee wakaam bàyyi kër googu foofu Macky Sall la bu amee leneen ak leneen Macky Sall est-ce que comprendre c'est pas comme nous nous nous fait tout seul dañoo xoslu. benn ñaar ñett ñett mais nangul ko liggéeykat la. non liggéey xam nga. Thérèse Faye Diouf liggéeykat la man tey man tey gars yi nee nañ dañ ma di ma di ma sànni xel nee nañ jaaykat boutique laa woon man au naa mérite daan naa sama sama kër gu ma jënd en 2011 euh, bu ma nekkee Gabon laa ko jënd au moins xoslu naa. te jaay boutique moo la ko waaw mais non non jaay moon boutique mais comme dañuy saboté. ah man am naa mérite nekkoon naa Gabon di xoslu Moodu Moodu laa jaay naa soow si ba soow pour fay fay sama jàng jaay naa si ab kara soow Cheikh euh, Cheikh Traoré le journaliste à la RTS bu muy def dernier journal bu muy nekk stagiaire guddi la ma doon fekk maa ko doon est-ce que comprendre je suis fier de mon passé man am naa passé boo xam ah, je m'en glorifie ah ma ne tuxu jàmbur nga. non waxuma la non non boobu yàgg na non dama ne pour wax la ne je suis fier de mon passé. ok est-ce que tu j'ai pas honte de mon passé j'ai pas honte de mes parents. ok mais mais.